di sous préfet bu arrondissement bu Ndaam te ku tudd sous préfet sous préfecture arrondissement bu Ndaam danga tuddaale Touba euh, mu doon kilifa nag nekk ci euh, sous préfecture bi wax dëgg yàlla bi mu jëlee service euh, yàgg gu fi waaye bi mu jëlee service bokk na ci barab yi mu njëkk a visité mooy jumaay Touba ñëw xool mbooloo mi ni ñuy liggéeye ndax. Touba képp ku ko tudd da nga tudd jumaa ji ndax mooy xolu dëkk bi loolu la xamoon ba tax mu jëloon ay jéegoom tànkam ñëw fi visiter xool mbooloo mi euh, jëflante ak ñoom laaj leen seen taxawaay ànd bëgg ànd ak ñoom liggéey bi koor gi itam fa tabarakallahu niñ ko baaxoo defee kilifa gu fi nekk dana ñëw xool liggéey bi loolu mooy ay tànkam tey mu ñëw nag ngir xool si liggéey bi daal mu xadamatul xidma di def muy ndogu yi ak conférence yi nga xamante ni moo fi am ak mbooloo mu bari mi nga xamante ni moo fi doge muy acte social bu am solo boo xam ne képp ku fi nekk war nga war nga cee kii loolu nag moo tax moom mu ñëw fi tey kon sëñ Babacar ginnaaw bi ñu la dalalee jàmm nuyu la ci turu sëriñ Afia mi nga xam ne mooy njiit daari mu xadamatul xidma ñu bàyyi la rek nga wax sa yëg-yëg ci li nga xam ne moom nga fi jot a gis tey jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi am mbégte teew fii di yëkkati ay kàddu di commencé ko ay kàddu nuyoo ak ziar Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér comme ni nga ko waxee sànq rek di am mbégte bu rëy tey ñëw bokk ak yéen dog tey si àllarba bi mu doon li nga xamante ni bii euh, lu ma amoon yéene la moo tax euh, ma ñëw fii depuis dix-huit heures fekkee ci waxtaan bi waaye tamit xoolaale dispositif bi nga xamante ni bii moom la daayira Muxaddamatul Xidma jël ci bërëb bii nga xamante ni bii bokk moom mooy bërëb bi gën a sensible ci Touba moo aussi béréb bi nga xamante ni moom li tubaab di wax défi quotidien maanaam bés bu jot ak maanaam défi bi nga war a relever ndax li ko waral mooy bés bu jot nit ku fi ñëwutoon démb ñëw fii donc doon na baax ma ñëw xool dispositif bi nga xamante ne bii moom la daayira bi jël depuis bi koor gi teroo ba léegi di ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax a baax te itam nekkul lu ma bett ndax daayira bi ci wàllu boppam dafa nekk partenaire administration waaye itam di wéy ci ndigal ndigal loolu mu jot sëriñ bi wóolu ko ba dénk ko bërëb bi dafa fekk ne ba mu ko yoree ba léegi yore bu rafet la ko yore donc mbooloo lu muy bëri bëri bëri muy koor gi muy màggal Touba ñun bu ñuy ñëw fii suñu xel dafay dal parce que dañuy xam ne di dinañ fi fekk ay taalibe yu am pas-pas ay taalibe yu bëgg lu baax ay taalibe yu yuy wéyee ndigal di rafetlu lool seen euh, seen dispositif bi ñu jël waaye itam di rafetlu bu baax yu bees yi nga xamante ni bi am na fi si diggante bi muy caméra de surveillance bi nga xamante ni bii ci wàllu sécurité bërëb bu toll nii lu ko aajoo la waaye itam di euh, télévision bi nga xamante ne bii mooy Grande Mosquée TV bokk na ci li nga xamante ni bii dina yóbbuwaat xew-xew yi fi am fépp ci àdduna donc loolu doon loo xamante ni bii lu ama ama ama am solo la li si des mooy solidarité bi nga xamante ni bii ñoom baaxoon nañ ko koor gu jot te mu doon li nga xamante ni bii ndigal lañ si jotoon euh, di ko wéyal at bu jot ñu koy def euh, ma gis ne dispositif yi ñu jël wax dëgg fa yàlla organisation mënu koo gën a rafet maanaam mbooloo mi fiy ñëw mënoon nañoo xalaat pëccëxoo wala leneen waaye dafa mel ni ñoom jël nañu devant yi ba fi mu toll nit ñi ak lu ñuy bëri bëri bëri bëri dinañ ñëw xewlu ci yar xew lu ci teggin respecté li nga xamante ne bii mooy euh, directive yi nga xamante ne bii moom la daayira bi tëral donc leneen li si des mooy man nekk naa témoin maanaam euh, euh, wax nañ ma transparence bi nga xamante ne bii mooy am ci maanaam euh, wàllu euh, contribution yi nga xamante ne bi taalibe yi ñu ngi koy def ndax gis naa ne ku ne ak loo munta joxe ak nu munta toll mu doon million wala mu doon ñaar téeméer dinañ la bind lettre wan na la na jot nañu maanaam sa euh, ndimbal ci li nga xamante ne bi moom la ñu taxawee koor gu jot donc di leen félicité bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla seen taxawaay bii <clears throat> yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ndax am na solo lool lool lool lool lool lool yëg-yëg daal bu boo xamante ni kontante la ak mbégte laa fi am euh, depuis bi mu fi ñëwee ba léegi. waaw euh, jërëjëf monsieur le préfet ci kaddu yu am solo yi nga ne waaye dafa mel ni itam teewee nga waxtaan wi ñu doon waxtaanee tey wàllu communication ak jamono ji ni mu jaxasoo communication dérive yi ciy am. nga xam ne daanaka bari na yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne ci communication lay déparé taxoon ñu tànn thème parce que sujet bu ñu fi tànn rek dafa am contexte bu tax ñu jël ko loolu moo taxoon ñu jël contexte contexte bi moo taxoon ñu jël thème bu toll noonu yow waxtaan mi lan nga ci mën a jàngate waaw waxtaan bi kay moom euh, am na solo trop te ñëw na fa mu war a ñëwee ndax gis nga li nga xamante ne bii moom la ñuy wax presse ñun ñi dañoo ko jàppee sax mooy quatrième pouvoir ndax doole bi nga xamante ne bii moom la am ma dégg ci waxtaanu conférencier bi mu artu leen ci lu bare bare bare rawatina ñu xam ne li ñuy wax dañ ko war a wéer si dëgg waaye tamit du lépp rek la ñuy wax maanaam loo xamante ne bi boo ko waxee mu taalam réew yaakaar naa ne moom ci wàllu boppam nee na loolu jarul nit ñi di ci artu maanaam jarul nit ñi di ci yegg ndax euh, am na ci dëkk yoo xamante ne bii seeni jëya ci presse la jógee bu te bu yàggul rek donc euh, am na fii ci Afrique muy Rwanda li ñuy wax rajo des mille mille collines donc ci ay désinformation moo tax réew ma tàkk donc muy li nga xamante ni bii lu am solo la que sunu mbokk journalistes yi xam ne li ñu yore maanaam euh, am na dayo boo xamante ni bii ak euh, façon jumtukaay boo xamante ni bii boo ko ko boo ko ko utiliser mën na indi jéey ci réew mi donc sant yàlla ba nga xamante ne bii ci thème yi boole woon nañ ko ci te yaakaar naa ne ñi nga xamante ne bii ñoom lañ ko jagleel muy suñu mbokk journaliste yi dégg nañ ko et que dinañ ko wéy leen ndax euh, lu waay am nag jàmm moo ko gën ñun nag xamaguñu njëriñu jàmm nit ñi nee nañ jàmm bala ngaa xam njariñ bi faaw nga ñàkk ko faaw nga ñàkk ko ñun nag yàlla daf ñoo suturaal bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi dund si jàmm waaye réew ya nga xamante ni bii jàmm amu fa bu ñu sañoon def lu ñu mën pour delluwaat ci jàmm ñun nag yàlla na yàlla gën a saxal jàmm fii Sénégal ku si nekk rek daal di si euh, liggéey li nga war a liggéey muy wàllu presse bi muy wàllu politique bi muy wàllu euh, euh, économie bi ku si nekk bu ci bayee waaram rek yaakaar naa ne Sénégal dina continuer di des si jàmm ok jërëjëf jërëjëf monsieur le préfet ak délégation bi nga àndal wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu sant nañ bu baax a baax ci jéego yi ñëw bi ak it kaddu yi nga fi yëkkati ak it kóllëre bi nga xam ne am nga ko daayira Muxaddamatul Xidma ndax kilifa administration nga boo fi ñëwee ñu ñoo waroon ñëw ci yow rendre la compte leeral la fi liggéey bi toll waaye defoo ko xam dayob jumaa ji ak liggéey bi fonk goo ko fonk moo tax nga jël say jéego ñëw fi toujours nag nekk ci suñu ginnaaw itam lépp lu ñu soxla ci wàllu lu jëm ci administration loola pare nga pour taxaw ci daara bi ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu woyefal yan bi yeggale sa liggéey bi nga am yeneen ndam yu bare baree bari ci barke Cheikhul Khadim barke weeru koor tamit jërëjëf